mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen Talla Ndiaye yaa ko gën a xam xam nga ne samedi bii passé làmb amoon na arène nationale Baye Ndiaye tëggoon ko diggante la de Guiers numéro 2 ak Boy Niang làmb ja jeex nag ci mat nul waaye coow li jeexagul Leewtoo TV nag ginnaaw bi lépp dale ci côté Boy Niang tey ñu ñëw seet si ko ndax Lac dégg ngeen la mu wax toolof ne na wenn lay pàq la lii nag moom defe naa Leewtoo la lii may gis nii Talla Ndiaye marque Leewtoo la photo bi photo Boy la mais nañ yéeg fii nga taxaw fii ma taxaw nii ma ñëw waaw loolu ngeen di gis photo booy ñang la waaye loo ci mën a dégg daal olof njaay ko wax wenn lay pàq lay doon wenn lay pàq lay doon te yooyu du wóor man nag làmb la ñu bëri jeex na taala bu la neex nga yegg si ndax bu dee dañuy seet nit wala ñuy seet mbër loo ci mën a dégg moom gis nañ ko fekk ko ci téléphone muy manipuler sol nag sax dara pour réew mi toog nii xam naa kon moom mu ngi bàyyi xel équipe nationale daa mel nii parce que drapeau national la sol tey wala man lay piraté mais sama maillot gën a doon original ba sam nag xam naa ne <laughs> champion bi ba nga jàmm naka yëngu sant bu baax a baax jàmbaar masa coono waaw noonu la ma sa coono <laughs> coono bi ñoo ko bokk yaa ngi sol sa maillot national to waaw noonu la non dañoo xew nag de ah. <laughs> ñoo finaalu ñoo finaalu <laughs> maa ngi nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu sama xarit yi ma ci am ku ci non ku ci mel Idrissa Gana Gueye sama xarit la Papa Papa Cissé sama xarit la doomu Pikine la yaa ngi dégg di nuyu Cheikhou Kouyaté di nuyu lion yëpp waaw ñoom ñëpp ay champion ay gaynde lañu ñeent wax ñu ngi seen ginnaaw nañ commencé woote génn sarax yeeg yooyu foo coupe bi ñëw moom <laughs> non ñu ñëpp ciy jàppoo incha allah ñu ko xamee rek kii moom damay jàkkaarloo ak moom parce que dañoo war a jàkkaarloo waxtaan ndax nag kombaam dafa taxaw bëri coow lool bëri ba ñëw stade bi fës loolu war a arène bi combat ba jeex coow la continuer maa ngi lay bëggee mbër maa ngi lay rëbëggee sax laay wax waaw maa lay rëbëggee di renuyu yow di la ziar bu baax a baax sant yàlla jiw si bi sant suñu ñaari waajur di nuyu bi waa kër Cheikh di nuyu kilifa diina ak kilifa aada yi dëkk bi muy waa Pikine di nuyu sama fans boo ñaa nekk di leen nuyu baax a baax yéen waa Leewtoo di suñu waa ji xam nga di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp waaw. yàgg Lac de Guiers de su ma delloo tuuti ci ginnaaw combat bu bari woon coow la lan moo animé woon coow li sa digganteeg Lac ci yow la wala ci moom la wala ci ñaari gox yi la muy Pikine ak Guédiawaye waaw combat bi benn coow bi maak moom la beneen coow bi mooy euh, Pikine waay xam nga du ñu ay ennemi waaye tamit du yomb ñu ak ñoom du mës yomb xam nga waaw dër bi lay doon xam nga muy làmb ñu war ko bëree xam nga Sénégal di ko xaar monage di ko xaar xam nga loolu moo tax combat bëri coow daal te làmb xam nga coow lay commencé fa lay jeexee daal waaw Euh, coow lay commencé fa lay jeexe mais sa combat ak moom dañu dem ba ci dernier jour yi ñu dégg ci ay coow ma lu xew coow yooyu ci diw a ngi jàppale diw diw a ngi ànd ak diw ba ay plainte ak ay coow am ci coow yooyu yëg nga ko non yooyu nag instant boobu nekkoon na maa ngi ci préparation sori woon naa ci préparation yi quoi moo tax bàyyi ma xel coow wala dégguma ko kon waaw mais comme lu ma ci mën a wax rek moom xam nga ñu ay doom Pikine lañu ay xale lañu xam nga bëgguñu dugg ci ay détails nag mais ñu ñaan daal jàmm am fi ñu ñëpp bokku ndey bokku baay parce que jàmm ci la lépp xaj daal incha allah. mais eh, est-ce que tey ñu dëkk bokku dëkk nga xam ne lépp ñoo ko war a bokk est-ce que ñoom waruñu ànd bokk ndey ak baay wala. loolu mooy yoon sax parce que loolu mooy jik Pikine lu mu am rek loolu moo ko may quoi mooy bokku ndey bokk baay loolu mooy mës a jik quoi te maa ñaan yàlla loolu mu kon ne quoi incha allah. dama bëgg la ñu dugg si combat bi a 100 pour cent loolu tam ñu xaw cee leeral tuuti ñi quoi parce que bëri na coow li diggante Boy Niang ak Ama Boy Niang Ama Ama la mu mën a wax si sa digganteeg moom loo xam ne lu ñi mën a téye la xam ñaar ñi amu ngeen benn jafe-jafe non loolu mu la mën a wax sama diggante ak moom mooy jaam ak salaam loolu moo am sax jaam ak salaam mu am parce que amuñu benn problème sama frère la maa ngi koy ñaanal jàmm ku baax la xam ñoo ñëw la dooleel ma keroog ñëw kàttanal ma xam nga ma ngi koy nuyu baax nuyu sama seen champion bu mag bi maa ngi ko nuyu bu baax parce que xam nga comme maam jege na Lamine xam nga loolu sax. ma gis ko mu ñëw arène ba mag la quoi loolu moom xam yéene moo koy def quoi maa koy ko ñaanal ndam nit ki fu mu la taxaw rek foofu nga koy taxaw daal moom jàppale na ma bu baax sama mag Eumeu maa ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax di wax Pikine na suñu benn combat moo jeex rek mais beneen bi des na daal il ñu jeexal ñaar yëpp daal incha allah gars yëpp nañu ko jàppale ñaanal ko mu am ndam daal incha allah jàmm daal moo am suñu diggante ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay bàcc Seras yéen a ngi déggante. waaye bàcc waaw moom moom combat bi gën nañ ci déggante mais début bi gënante nañ ma woon ko am naa saa ma amee combat koy woo bokk naa ci mbëru Pikine yooyu communication bu defoon naa ko mais xam naa bàyyi woon ko xel bokk naa ci mbëru Pikine yoo xam ne bu amee combat day jël téléphone am taay dañ ngi koy nuyu dama koy woo mu tëdd ci euh, bàcc Seras ama ah, dama koy woo damay woo Moussen damay am naa combat seen rakk ñaanal ma man moom loolu esprit boobu laa yàgg doxee soq ñoom Jadli Gaab l'an 2000 gis naa la ñoom ñëpp ci kaw ñu ñëw jàpp ci quoi Batista Gaab daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal taxawaay bi rafet na quoi. Reug Reug da ngeen am ay relation. keroog nag xam nga maa ngi koy remercier bu baax a baax yaa ngi dégg def na lu naaj keroog ñëw na xam nga dooleel ma ci lu mu sentir xam nga te mu naaj tam xam nga àdduna moo amul solo quoi làmb daañu euh, de Sénégal mbir yëpp du ay ennemi ñoo bokk ndey bokk baay. yaa ngi dégg amul benn problème teewul nag xam làmb ñu ñëpp ñoo far mais bu ñu defee nit defee lu naaj rek da nga koy rafet lu daal ah waaw lu naaj rek maa koy remercier bu baax. mais bu leen làmb boole woon di ngeen bëri. waaw non loolu <laughs> du ma xam man dafa ñëw def rek man geste bu rafet daal ah. te loolu rek laa mën a apprécier apprécier naa geste bi maa ngi koy rafetlu maa ngi ko ciy remercier foofu daal yaay yamagum <laughs> hmm. foofu laa yamagum waaw waaw. am na lu ma dégg ñuy wax de papaam da am ak papaam ay rela da nga am ak ay papaam. non sama ak papaam ñoom ma ko nag waaye noonu la quoi làmb moo xam ne day dox te ñu ñëpp ay frère lañu waaw xam nga bëre ak ñaax ko bëre yëpp a fexe làmb jëm kanam xam nga luy neexal làmb rek ñu def ko te ñu tamu rafet ñu bokk ndey bokk bàyyi quoi la la keroog ma demee këram moom laa lay laaj yow tamit keroog bi nga xëy si samedi bi nga yewoo loo yëg la ma day non la ma doon yëg rek tranquille la xam man mooy loolu man taalibe Cheikh laa xam nga booy Pikine laa xam nga <laughs> jaar naa ci foofu booy Pikine yëpp dem nañu kamba lekk garaaj rëbb nañ ay xaj xam nga nekk nañ ay waga dem nañ syndicat buuju ci mango ay booy Pikine lañ ñu xam ragaluñ loolu yooyu yëpp jaar nañ ci moo tax garaaw dañoo yeew ànd ak gars yi xam nga tranquille waaj xam nga bu ñu paree ñu jàpp wut stade incha allah. kon taloon na nga mango. non taloon na mango ba pare wut benn weñ ko. sa gars yi ñuy ree xam nañ yooyu buñ benn ba pare yooyu ba pare tëb esat fa lañ koy lekkee yooyu yëpp jaar nañ yaa ko ay booy pigil lañu waaw nit nag boo am na fooy toll da ngay war a yar ak teggin xam nga teggin bu ci yoon mais ay waga lañ ñu gaa yëpp de jaar nañ fépp léegi su ma ñëwee ki nga doon bëree Lac de Guiers numéro 2 nga ñëw arène nationale bi nga duggee arène nationale mbooloo mi nga fa gis yow bi nga duggee lan nga jëkk a yëg ci mbooloo moom nga gis noonu ci arène bi kera parce que arène bi presque feesoon na waaw noonu la loolu moom dañ ci kontaan bu baax parce que bu ñu waxee dëgg rek mobilisation boobu gën nañ ko gis bu baax baax mobilisation bu nag Pikine la mobilisation boobu soppe boo ñaayee la fu ñu nekk waa Gambie yi maa ngi leen nuyu bu baax a baax Thiès Tivaouane Sambe Niodior ku jaa jën yaa ngi dégg jam Diamniadio Diourbel fu ne la gaa yi jóge indi sama dëkk Sambe gars yi jóge dafa ay kaar Tivaouane ñëw ñooñu ñoo feesee stade bi dellu boo ñaa am na avantage boo xam ne mbaru Pikine supporter Pikine dañ may supporter dëgg la waaye dama am su ma bëri ay kaar yu jógee far ñëw tey tool ci ay vingt cinq kaar ñëw ku nekk ñu wutal ay billet nga dugg saat loolu tamit bokk nañu lu ma gën a dooleel daal ak waa Pikine tamit nekk sama ginnaaw bëgg combat bi fonk ko maa ngi leen remercier ñoom ñëpp incha allah. nit ñëpp gën magi Pikine yeeg ñëpp gën yàgg lak dëgër numéro damay ñëw si combat bi arbitre woon na leen ci biir géew bi. wala balaa ñu yéeg sax ci côté mystique bi dama gis kara dafa mel ni da ngeen ko farataal lool lool ba mu gëwén jël ci temps bu bëree bëri bëri combat bi dafa laajoon mystique bu bëri wala waaw làmb moom boo ko waxee rek wax wax ñaan wax mystique wax ñaan yi xam nga loolu ci la bokk boo ko deful sax sa mbokk yi ku nekk jóg xam nga dem jàppale la ñaanal la quoi xam nga ci la moo tax def nañ ñu boo xoolee ni concentré wu nañ ñu ñëw njëkk a pare sax xam nga ci côté mystique bi ñëw taxaw xam nga di xaar moo tax mu def li mu war def côté mystique amul la après ñu xaar mu ñëwee at bi suuf la ñu bëri waaw am na ñoo ñu ma gisoon wala ñu sénégalais yi gisoon ci combat Balla Gaye bi mu bëri ak Modou Lo ñu andi ko ci côté mystique ñooñ bi nga leen yow yow ñooñ gis nga leen kera ni ñu ànd ak lan ah na non waxuma la gis naa leen gis mooy ñëpp ànd nañoo nag xam noonu la xam nga affaire yi yaa ngi dégg ñoom bu ñu amee combat ak booñaa xamante ne xam booñaa dafa sonn waa géej waaye wala <laughs> bi dëgër na gars yi ku nekk jàpp gis naa leen ñuy génn sarax ku nekk di kii mais li ma waxoon rek moom affaire yi moom ku nekk da xaar sa kopp fonde rek jarul yaa xam du bàyyi ah. waaw loolu laa di delloowaat rek ne ku ne xaar sa kopp fonde jarul nga yàqamte xam nga mooy loolu sa bos bu jotee nga génn say saraxu bopp affaire yooyu gis naa leen ñu génn sarax ku nekk indi say biteel affaire yooyu mais sant yàlla géej waaye damaa fa daan ay mbër ci jël yu leer fi mu toll nii man maa amel waaye ñu amel luñ ma amaguñu mbër bu ma daan ah déedéet dañoo amagu mbër bu ma daan lak ne daan na la non def nga teg nga fes def nga kat appi wala lak sax ci làmb mu ñu waxtaanee Babacar laaj ci làmb war na jomm sax ak man ci ay teg na fees ci ay quatre appuis pour mu mën cee jubilé ci làmb Babacar Lac man ba mu koy xam ci làmb boobu maa ngi école di jàng damaa ñëw sama laaj ba egg si moom géejewaay ngemb ko. gaa yëpp def seen coalition ne fii la boo jaa bii nag lay jeexee. coalition ñan ñan ñoo def coalition bi. ñan ñoo ko coalition bi ñu topp ci ginnaawam yow yaa wax ni ñëwaat nañ. non man li ma la dafa leer dama ne dama gis ñoo xam ne bi Balla Gaye di bëri ak Modou gis nañ ñoo xam ne nii gis nañ laat leen kër ñëwoon di tollu Sénégal yëpp li ma gis nga gis moom la ñëpp gis. kon kat coalition bi dëgër na indi nañ ngem bi mu dëgër lépp non loolu nag buñ mais dem bërsëgal naan moo est-ce que booy bi ndaw wala mu bëreel loolu nag jomb naa ko ci moom nag ma seetaan yenn studio mu génn ne day fête victoire affaire yooyu jomb naa lool ci moom nag waaw waloon na ma moom mooy kan quoi xam nga ñu xeex bëre bu ma yàlla bu baax xam nga mais daanu ma ba pare gis ko mu naan non booy bi kaat ab bi di wut ci amoon ay kaat ab bi non non non loolu war na foofu parce que moom bëre nag ay champion ku bëre ay Yékini ay Papa Sow bëre ay Modou ay Eumeu Sène di wër booy bu ndaw boo ñaar bi nga xamante ne 2010 la ngay wut ci moom ay 4 appeek ay loolu non war na dépassé foofu ci làmb bilaay walaay. war na fa dépassé ci làmb léegi damay ñëwaat ci biir combat bi laaj naa ko ko arbitre dafa àtte benn moment ne leen ne nga dem ardo yow mu ne la yow lak ne yow da ngay dem ardo boobu da ngaa naaj wala naaj yow. ba pare dégg naaj information yi mu ci joxe. waaw wax am na lu mu ci wax fii ci Leewtoo TV. waaw loolu baaxul xam nga am na benn instant communication dafa solo te moom champion la quoi wala communication bu nice affaire yi amul solo quoi xam nga làmb la rek après damay jeex mu xool benn adversaire man tamit ma xool benn mais am na yoo xamante ni jaru boo bëree ba pare rek yow yaa ngi sànni ay traak kii moo ma dóor kii moo fay kii moo ma dàq kii moo dóor xam nga yooyu baaxul yaa ngi dégg dégg naa ci wax ji mu ne arbitre bi man ak moom yëppal naaj mu ne arbitre dafa ñëw ci man man piis arbitre bi xam yoo xam nga bu baax quoi arbitre xam nga nekkul koo xamante ni la CNG moo ko fi teg yaay ñuy kilifa quoi ñëw di arbitré am na ay piis wala ay wax yooyu yooyu du baaxul quoi moom moom exemple la comme ni ma nekkee exemple ñu ay porteur de voix nañuy wax mu naaj yaa ngi dégg man maa xeex ak moom yaa ngi dégg dóor ko kuubu dal arbitre atte mais ci jàppante bi la arbitre gisee ni moom mu ngi naaj mu atte na ko demal ardo mu ne man maa war a dem ardo arbitre bi ñëw dama ŋaangal ma ŋaang mu tourné na ko non demal ardo kii kii amul deret amul deret ci moom yaa ngi dégg mu dem ardo mais dafa war dem ardo moo tax mu dem ardo lu ko dem ardo nag ne ko ay wax ay kuu ko yóbbu ardo ah, rek ardo dem ardo boo jëlee kuu da waaw bu ñu la gisee ngay nàcc il faut ñu àtte arbitre bi amul benn intérêt pour àtte ko noonu rek da ko àtte parce que dafa dafa nàcc mais loolu garaawul quoi nay dégg comme ni man lu ma koy wax rek moom sama mag la ñu fekk ko ci làmb comme ñeneen ñu nekk suñu gag bu ñu instant yi contrat moo ñu boole jeex na bu ñu day woon léegi dañuy nuyoo bokk ndey bokk baay mais mu naaj rek xam nga bu sànni kenn traak xam nga suñu boom defal nara lu mu lay defal sante ko yàlla nga xool leneen quoi moo gën waaw léegi suñ ñëwee ci biir bëre bi li indi coowul bëre bi maanaam action bu ngeen boo daw jëli ko nga def action mu dindi action bi loolu wala wala yow mi nekkoon di bëre bëre bi sax noo may dikkale ci loolu am noonu. man jëliw ma la dagee benn yoon boo xoolee jël naa ko ñetti yoon ci kombaa bi loolu yëpp lu ma ci jël mooy ñu bëre maanaam Babacar boo xoolee bëre bi nga gis boo ñaa abit na far mu toog ci ay tàngam wuti adversaire bi loolu ma ko de bëriwul ba abit na far boo image bi mun nga ko di dawalaale dama toog tuuti léew toog moom wàcc samay tànk dox wuti ko. loolu dama bëgg ñu xeex bëre parce que làmb ñett moo am dangay ñëw indi mbooloo def ambiance bu mu fees war nga ñëw war nga ñëw tuus tuus bu neex war nga ñëw beneen bi ci des ñëw ci géew bi def flag fade ñett yooyu ñoo am ci làmb dangay ngay mobiliser indi ambiance ci làmb ci biir nga xeex bëre mais ci ñett yooyu noonu ci làmb yi mënoo wax la dëggee benn la ci indi la dëggee bëri nañ ba jax dóoruma ku ma dal taxaw nañu xeex dóoruma wenn ku moo dal la dëggee amul fu mu jógee jëli ma te li ma nekkul dama koy wax nii rek da damay wax nii yaa ngi commandé mun nga teg sa image nga teg sa image amul benn action bu la dëggee jug jëli ma amul benn la dëggee ma la dëggee dóor ku ma dal yaa ngi dégg man maa ko dóor yóbbu ko ardo man maa ko jëli benn ñaar ba ñetti yoon def ay action ko faax ko bëreeroo ko yaa mais poids bu toll noonu boo ñëwee tey du daanu loolu doxalu làmb daal yaa ngi moom dafa am tur mu jógee nekkul man rek la match nii lool man maa ngi sant yàlla ci làmb. ñaata match nii làmb nga naan yow doo yow rek la match nii. waaye yaa xam làmb. man ma ah, yow miy bëre. mais man man ma bëgg ne mooy affaire bi mu jeexee rek automatiquement Sénégalais yëpp maanaam dégg nga la dëgg de mooy waroon na mën a bëree waloon na mën a neexal combat bi man su ma doxee wut si la dëgg mu dox wut si ma dañuy bëri dañ fiy jóge yoo xam nga loolu mais combat ak li ñu wax ak la dëgg lu mu ma tëkku waat sëñ Babacar si wax lépp man ma dox wursi ko mu dem gauche dem droite arrière non loolu xaaruma ko woon ci bis bi dama def ni woon dañuy xeex bëre maa ngi moom. indi coow li man. jox ko sama wet mu may kal ma jéggi kal bi yaa ngi dégg teq ko ba ma koy teex ñu ànd jëm suuf ma fàq ko mu ñëw def kaat ab rëpp yaa ngi dégg ma jóg neena na man dama teg fas mais jeune laa teg at bi bi dafa jóg ñaari juge mu woo leen ñu ñëw yaa ngi dégg man ma ñëw si at bi bi juge xool sama ngem gis ni laalu suuf mu ne ñëw ñu bële. man ma ñëw bëre si am na loo xamante ni nekkul lu ñuy dem gauche droite maanaam mbër bu teg fers rek bu jugee stade bi yëpp dañuy xam ne kii ngembam laal na suuf loolu jarul sax arbitre bi wax da ngay tourné rek ñu xam ne yow sa ngemb laal na suuf parce que suuf la ñuy bëree te suñu ngemb dafa tooy bu ñu jugee génn da xam ne fii dafa laal suuf mais dañuy xool gis ni sama ngemb laal suuf moo tax ñu ne ñoom ñoo bëree yaa ngi dégg mais loolu xam nga la am dafa muy doxee boo ñaar dafa am staff am ñu nekk ci ginnaawam li ñu war a def defal nañ ko defal nañ seen recours dañ koy dugal di xaaj suñu victoire loolu affaire équipe bi la affaire CNG kii nu mu tudd CNG la affaire ñi nga xamante ni ñoo yor équipe bi la mais man sama affaire bopp personnel mooy man ak moom dañoo waroon xeex bëre bëggal amateur yëpp parce que loolu moo ñu woon. da ngeen di bi pour lu ngeen di réclamer. suñu yi mu def ba mu dafa def def carte d'appui loolu dañuy réclamer. kon da nga jàpp ne moom dafa daanu. waa si ba ma ko kiiyee mu teq ma ma génn sama tànk tur ko ba ma koy faax dafa rëpp def carte d'appui ma jug. moom mi ngi wax dama teg fa teguma fa sama zone laa teg te loolu CNG ñooñu gën a xam parce que ñoom ñu ngi seen caméra ñu ngi seen image ñu ngi seen lépp. mais jamono ji leen arbitre bi àttee ci action boobu yow jàpp nga ne day joxe ndam te bu koy jox da koy jox. damaa daw wuti arbitre bi mais comme moom nu mu dawee wuti arbitre dama daw wuti arbitre bi arbitre woo ay juge am ñu waxtaan moom juge bi ne la dañuy bëriwaat moo woon ci géew bi ñu bëriwaat man noonu laa mel ci làmb su ma woowee damay bëriwaat damay ñëw bëriwaat. parce que gëm naa ne dañ mois bu ñu bëree wëree wëree ci am waaw. léegi bi ngeen jógee ci na am trois mais dañu gis ne boobu dafa mel ni moom bi mu ñëwee dafa am confiance di ma gis muy lay xaw di sànni góosam di dox sa kaw ba nga jël foofu benn avertissement ngeen toll avertissement est ce que loolu moo yaa ngi ci doon bàyyi xel avertissement boobu. que moom mi ngi am trois man moom mi am quatre ma am trois yaa ngi dégg ngi taxaw fi ñu taxaw moom comme li ma la dóoruma dàquma génn saako yi doxul sama kaw man combat boo xoolee commencement ba fin benn pas en ma def ci combat bi mun nga seetaan vidéo yëpp dama ko maa ngi taxaw fi taxaw yaa ngi dégg at bi jékki-jékki bi jox ma avertissement yaa ngi dégg man wax ci biir bëre ci biir bëre du ma kaas damay concentré ci li may def mu jox ma avertissement amul benn problème ma continuer man ba dernier ma man rek la déggee war nañ ko war naa ko mën a gagné ci avertissement man damay sant yàlla mais dama am ndam parce que loolu mooy sama gëm-gëm mais suñ borom nag li la dogal dañ koy sant yàlla mais dama bëggoon am ndam daan parce que loolu moom indi ci bis bi. amateurs yi wala sénégalais yi seetaan làmb dañuy jàpp ne Lac de ak Boy Niang dañoo décevoir public bi yow ja d'accord nga si loolu. non non décevoir bi parce que xam nga làmb man lu ma indi bu fekkee Lac de loolu la indi day jeex Lac de Guiers li ma la bëri bi ba mu commencé ba mu jeex amul fu mu jógee jël si ma wala fu mu ma dóoree mu daal jëlu benn initiative. man maa ko dóor maa xeex moom maa ko yóbbu ardo maa ko jëli trois fois maa bëreeg moom maa ko fàqu maa ko teq maa bëreeg moom moo amul lu mu def munoo ne action bii boo ci booñaa ci làmb ji loolu bu téye sama ne nengeeñ du ma mën a jàpp mu rasu la bëri ci làmb munoo wax ni lii action bi booñaa la dagge def na ko booñaa ci làmb ji jëli na ko wala teq na ko wala paat na ko wala dóor na ko kon làmb doxee noonu nit boo nekkee say moroom nga bëreeg ñoom ba nga xam say rakk dañoo ñëw di da ngay dëggal sa bopp foofu mun nga bañ si ñoo xam ne say morom lañu niir naa ngoo am nga ñu mas niir ak ñoom mais boo dajee ko am sa rakk la géej yab la ñu def lépp lu ñu def indi ngemb yëpp ñu ñëpp ñu def ko su boobaa dafa woon ñëw rek dëggal naa leen ñoom comme ni ngi leen gisee loolu ñu ñu faral ko jàppale ko de wutali ko ñaana <laughs> da koy jar dafa war boppam warul wax sax ma damay dama ci am kersa sax mu toog ma gis ni mu ne damay kontaan parce que damaa daan parce que damaa damay réclamer ay kat abi ci Boy Niang boo xamante nii 2009 la dugg ci làmb fekk la ci làmb non non dafa war a dafa war a bu daan dafa war a bëreeg man war ni ma man maa diw loolu moo neex ci làmb quoi. est ce que lii ñi doon wax ne Boy Niang bu jógee fi day bëree jeeg Balla Gaye est ce que du du freiné sa bi nga jëmoon ci Balla. ma lii mënu freiné. sa diggante ak Balla Gaye bi ñu doon wax. freiné kon mu freiné yeneen champion yu mu niilal <laughs> saa yi nekkul ma dag leen nii leen di bàyyi kon mu frère day leen champion bi moom mi ngi ci bunt bi puusul paasul ku ñëw da nga koy bàyyi sa ticket rek dem sa yoon. kon da ko bàyyi ticket bàyyi nañ ko dem suñu yoon mu toll nii non bu sol comme ni ko gars yi def léegi foo jëm comme da nga faa bàyyi ticket non fu mu sol man fépp laa jëm fi mu toll nii toll naa ci làmb boo xamante ni am nga pare géej waay waaw non maa ngi ñoom moom du yomb ndax da faa pare du mës a jeex xam doon jeex ah. <laughs> mën a ñoom moom guerre man a moom du mës a jeex ah. guerre xam doon mu doon guerre parce que fi mu toll nii ñoom amaguñu mbër bu daan Boy Niang ah Boy Niang dafa dugg déglu ma rek Boy dafa dugg foofu daan leen bañ ne nag kii mooy ñëw nag kii moom tey fii lay jeexee jeexul daanu ma ci làmb dañoo machine ñoo koy ñoo war a wut ku faj seen soxla. dañu da ñoom ñoo war ku faj soxla mooy lan. ah du ñu ku faj seen soxla. booy nag joxoñ balaa baax day dugg ci bët. bu son dama ne la. wax day yegg nag. wax buy dégg la de dama ne la. dama ne la ñoom. fi mu toll nii munoo wax kii moo tëgg Guédiawaye moo daan Boy Niang mun nga ko wax. kon ñu jox la Pape Mbaye xanaa. dama lay dégg dama la bëgg nga tontu ma rek. am xam xam nga combat yi nga am Guédiawaye moom ay ndam nga fa am. waaw daan nga Pape yi nga fa am ay ndam la bërki démb match nii la ñu wax kon ñoom gisaguñ fa sa defet ñun wax dëgg yàlla. kon dëgg-dëgg wax dëgg yàlla amagul mbëru Guédiawaye bu ma daan. waa ci li ñu arbitre wax bërki démb day gisaguñ defet ñun. léegi nag ñoom camp bal bi mi seen camp nooy wut ku daan mbër bi. cas xam nga géej waay itam ne nga daan nga fa ñëw fa ne guy gi daan nga ko daan nga les deux kaas bi ko waa voilà. dama ne la fi mu toll <laughs> ma wax la ko ak ma ko la ko wax xam nga ni benn carte for d'évidence ñun suñu kër gi bu ñu xëyee suñu benn carte for d'évidence mi ñu teg borom xam na ko xam na ni kaas bi kaasam la da koy jël si wala mu bokk fi. man nag dinaa la wax parce moom dinaa la ko wax. Pikine waa ci li ma xamoon ci den ko dégg ci ñoom. amoon nañu sañ-sañ bu toll nii lu ñu bëgg wax dañ koy wax ki dese non dama lay wax non kaasu fonde bi ki ko moom. amoon boo Pikine laa dama leen déglu waaw wax ju yegg dafa ko moom dama ne la waaye ñëwul rek waaye ñëwul Babacar bu yeggal wax dama la benn kaasu fonde fi des la déggal naanul kaas waaye naan la digg kaasu fonde mais benn kaasu fonde fi des borom xam na boobu da koy ñëw jël ñu yóbbante ko ko parce que dafay dogee borom daa ñuul dafa njool daa gàtt wala lan la da koy ñëw jël wala doomi mbër la da koy ñëw jël waruñu yónnee ko ko parce que dafay dogee point fa laa yem bëgguñu fi dogee fii da ngay jox revanche guy gi non fi mu toll yow fi mu toll nii moom joxe revanche dul teel la ci man da ngay leeral ak lak dëgg yàlla gu ma la moom day xaar yaag bàll gay nag puusul paasul yaag bàll puusul paasul waaw yaag bàll léegi ba pare lak da ngay moom ba pare lak lu la mu sànni ko ci kii moom ma dóor kële moo fayu amateur bi ni mu ma xoolee promoteur bi ni mu ma dóoree xam nga journaliste mu ma xoolee xam nga yooyu daal jaru ko affaire dañ xool na yoon ñun xool leneen. Sa Thiès da nga ko jox revanche. non non joxuma kenn revanche. da bëgg da kër Sa Thiès. ma fé fépp laa bëgg a dugg. Balla Balla Balla Gaye da nga nga ko bëgg a jox fonde. moo ko tere neex. ah. Balla keneen ak keneen a ci am. Balla ko tere. instant yi VIP yi nga xam ñoon ne ci làmb ñoom laa war a bëree. boo yàgg Balla loolu dina doy waar de. dama la. làkkut ci kaasu fonde jàmbur jaru ko sa kaas ngi fi tege man maa la wax sama kaas man new fii kaasu Balla ngay wax. rek déglu ma ñëw dama ne la yow may xam nga ko bu wiir wiir wax ji dama ne la waaye dama ne la jarul kenn di làkkatu ci kaasu jàmbur kaasam mi fi da koy ñëw jël wala ñu yónnee waaye Balla nag dama dégg gaa wax. ne nañ moom du xaar mbër moom bu arbitre soufflé mu samp jaaga. kon dañuy daje. dama ne la. booy daa mel ni sax sa sa yaram mi tàng de gis naa nga def benn concentration bu ndaw. waaw parce que dafa am loo xam ne moo tax ko bëgguma la wax lépp dama ne la. làmb mi ngi fi. ñu ngi fi moom mi ngi fi. yaa ngi dégg combat bi sonn na ci ne def na ko ci. yaa ngi dégg man man la dëgër jeex na. kaatu fondé moo fi des. waaw na ko jël. waroon jox ko ñoom ndooy bi ñu yóbbul ko maanaam force danga ko koy forcer bu ko bañee jël itam. dama ne carte fondeem boo sa doom yi wala sa rakk ku ne dem jëli carte fondeem ba mu war a loolu man maa ko wax waaw jeex na tàkk loolu ko wax. benn kaasam mi ko jël si wala ñu yóbbante ko ko. waaw kon nangu la jël si ngeen fekk ko ba géej waay jox ko ko. jox ko gaa yóbbul ko ko mafia bi ñu ragaluñu loolu. mais yéen ñaar est ce que déggoo na yàgg Balla. Hmm. bëre balaa muy neex ñaari bërekat di bëre bëre balaa muy neex maanaam yéen ñii séance sax yéen gën a xam làmb. waaw ñun reporter nañ mbër yu bëre ñu. ngeen di xam ngeen ni ñaari mbër yu wure. ma maanaam man fu ma jàppee mun naa def ñett ba ñeent action ci bëre bi te moom tamit xaw naa gis ci moom loolu. xaw a gis. waaw waaw xanaa. gisoo ci ma da ngaa xaw a gis. waaw xanaa dañuy bëree naaw rek yéeg ci kaw tur mais dinañ bëre de. yéen ñaar ku dàq bëre yàgg Balla Gaye non xam nga àdduna am na fa toll nekk xale doo wax yaa mën lii yaa dàq lii yaa dàq kenn man fi may waxee mooy xale laa maa ngi ci làmb li ma mën amateur yi xam nañ ko parce que daam lu ma lu ma wane ba yegg si fii maa ngi sama yoon daal di xaar incha allah ku ma làmb boole ma bëree yow soobee yàlla. Modou Lo ak Eumeu Sène foofu dama fiy ñëw moom moom benn waxtaan la sa grand Eumeu Sène c'est le roi des arènes actuellement bii mooy premier combat muy xëccoo couronne roi des arènes te ki mu doon bëri ki mu bëreel nii da daanoon. loolu yow yan ngi yéen a ngi ciy bàyyi xel yéen waa Pikine waaw ñu si ciy bàyyi xel bu baax ëmb ñu ngi koy ñaanal ndam suñu grand la déggoo suñu benn combat moo jeex rek mais beneen bi ñu ngi koy waajal loolu gis na nu ñu taxawoo suñu mag bu baax la ëmb champion bu mag bi ñu ngi koy ñaanal jàmm baax di ko ñaanal ndam incha allah di ko jàppale ñëpp nañ jàppale dooleel ko suñ moom defal ko ndam parce na ko daal gaynde jàmbaar la quoi te borom baax la quoi bilaay hmm. mais fi ñuy jeexal tamit dama lay laaj ay ay adversaire a ngi fi yeneen bu dul Balla gay 2 parce que Tapha Tine a ngi fi ah ki nga xam ne nii Modou Lo ak Eumeu Sène dinañ tàqali ko Gris doo ngi fi Reug Reug moom ci ni ma dégg daa ni seen combat moom man mënta nekk. pare ñëpp. Gris Bordeaux. pare naa pour bëre ñëpp champion yi yëpp pare naa pour bëre ñoom xale laa ne ci làmb yaa ngi dégg ñoo dugg naa seen biir ñoom ñëpp laay bëri ku ci pare pour bëre man pare naa pour bëre yow yaa ci xam koo ci doon mais li nga wax ak géey waaye dugg fa moo tax ma wax ko loolu mais ñëpp laa pour bëre. c'est que Balla moom li tax sama xam nga Balla daa moom li ma gis daa yor staff bu xaw a doy doy waar xaw ma nag ndax loolu di nga ko mën a dégg comme de bu yeggee bugguma sax ngay insisté ci ay diw lii diw laa yaa ngi dégg loolu affaire bu boppam la mais man lu ma wax mooy sant nañ yàlla suñu moom defal nañu lii ci combat pass ñu ci sant yàlla yaa ngi dégg waaye sa compte yaa koy régler sa bopp bu kenn làqul ci affaire bu jàmbul di wax waaw loolu jox <laughs> looy looy tàggoo ñi lay suivre ci Leewtoo TV ndax yow moom duma la laaj ndax am nga soxna yàlla def na am nga soxna daaw macha allah. à travers Leewtoo maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu Babacar di nuyu sama copain bi nga àndal Talla xam nga di bëggee ñëpp waaw Modou Talla ba Serigne Sall xam nga di nuyu baax a baax waaw waaw équipe nationale bi nag maa leen di ñaanal ndam sama gars yi. gànn gay xam nga Papa Cissé di nuyu gars yëpp di leen ñaanal ndam bu baax Cheikhou Kouyaté Sadio Mané mafia bi yëpp. Diao Baldé gars yi boo lim da ngay juum ñëpp ñu def fulaak fayda ak jom gars ñu ngi seen ginnaaw di nuyu sama gars yi nag ñoom ñëpp sonn nañ ci combat bi jàpp nañ ci écrit bi sama mafia bi ñi may àndal ñoom déggoo dërsi xam nga tum ñu ngi koy nuyu raja xam nga nekk gars yi mafia ah, bu ñu limee dañuy juum Père Diagne gars yi sonn nañ ci affaire bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gis taxawaay bi di remercier ñëpp incha ñu jàmm incha allah ñu kónneli ci karam xanaa di nga dem naa ne de sa copain la Idi Gueye moom sama mafia la moom sama gaañ la combat bi jàpp na ci jox ma muun bëri gaynde maa lay remercier bu baax jot naa lépp gis naa lépp moom sama xarit la quoi ak benn frère lam bu ñuy wax euh, Ibou Gueye su samay gaañ lañ quoi dañuy ñëw di ma seet di ci jàpp bu baax waaw dal jàmm waaw. Boy Niang am na métier. métier comme. métier maanaam mécanicien soudeur wala defarkatu euh, jaaykatu mango wala nangam. maa ngi investi daal nànk nànk. métier ndax bi nga nekkee xale jàng nga métier. Ah, école laa jàng man école laa jàng ba au niveau tamit. rek ne ci bëri. waaw bare rek ne ci bëri waaw. waaw loolu la loolu maa ngi bëggee ñëpp nag. yaa ngi waajal vacances noo xam nga làmb moom boo nekkee xale amul boo loo nekkee xale amul ay kii amul waaw waaw non si si loolu xam nga wax nañ ci ma yow wax nañ ci waaw. wax nañ ci maa yow xam ne dañ ciy ñëwaat mais wax nañ ci maa yow ba pare yaa ngi dégg mooy loolu làmb moom boo ci nekkee nekk xale rek da ngay góor góor amul vacance nga continuer sa yoon quoi ana Père Gana ak waa Ndondor mi ngi foofu waa Ndondor dem nañ ci jàpp nañ ko baax ñu ngi leen di remercier bu baax di nuyu Père Gana di nuyu ñëpp waa sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp waaw bu jeexee jeex na curuxu curuxu waaw dal jàmm <laughs>